wàcc na waay fii ba la 31 décembre bànneexu leen ci tombola bu mag bi ngir gagné enveloppe yu 50 000 francs yi wala sax kat kat gu yànji gi ñuy maye ci tirage au sort orange bu ne weesu na kalpe waaye yeewu na mi ngi doon sangu néegam laa jugee sang gisoo sang ba tey fa laa toogoon. ok dañoo gëjee gisee maanaam moom. non yéen ñaar dangeen dangeen yàgg dangeen yàgg voilà depuis depuis xale la ba tey ba tey ñu ngi ànd. man je me bu jamono yi nii euh, ficelé suñu fiançailles. billaay période boobu laa ko doon si après boobu nag ci la demee France ba tey ñëwul. ok moo tax bu ma ko gisee démb waaw gaw ma ko sax gaw ma ni moom laa gis. man xàmmewu ma ko woon ah sérieusement. Euh, ah! waouh, waouh, waouh. Ah, bonjour la famille. Ah, bonjour, bonjour ça va? ma chérie. Ça va bien? Ça va et toi? Bien dormi? Waaw, bien alhamdoulillah. Waaw, non belle ni. xam nga dama la namoon. aywa man dama la namoon oh, delloo ma si distance bi ñaata at. je te jure. ah. mon bébé tu m'avais trop manqué. xam nga ni fii la ëppee nag. chaque jour ma nekk sonal ji dama mujj dama ko takkal pot nan ko damay dem damay dem dama namm bi may dagg billet je te jure dama la namm tellement que moo ko sax lu ma coûté rek jaral na ma ko billahi xam la namm moom mais yaa ngi ci jàmm yaa de temps que vous que vous kii petit ba grand def na dix ans léegi ba nga demee ak léegi de wala. waaw quand même def na dix ans mais les années passent vite. trop vite même. mais j' espère que mi ngi lay toppatoo. mais bien sûr. xool ko xool ko xool ko xool ko muy xuloo. eh Tafa eh eh eh. eh, eh Tafa wax xanaa waxuma ak kii. wa eh. waa Tafa xanaa boo su ma la woo nga mën maa mën a wuyu boobu ba léegi maa ngi lay woo loo jàppoon bàyyi ko wuyu si di xuloo wécc wécc wécc bakkan ko fi nga doon werante Sadio Mané lañu war a jox ballon door kii lañu war a jox ballon door ba di ci xeex pour lan dafa bàyyil tàng xol bu ma la woowee wuyu ma. injustice laa dul nangu man injustice du ma ko nangu. foo gis injustice. dëgg jeu bii xanaa yow borom bi kese nga nga dem di liggéey nit ñëw xam liggéey bi gën laa maîtriser liggéey bi wax la dara ci liggéey bi nga lànk. problème lan la. dépôt orange money. waaw damay dépôt. waaw am développé ma sama xaalis. sama biir téléphone. waaw mun ma dama ko ciy fay. fay lan lan laa koy fay. orange money ak fay ah! dépôt. <laughs> heureusement ba ngay nandite heureusement yooyu jarul coow. jarul xuloo kii dama koy toxal. déedéet kii moom monsieur le maire faw mu génne. ba bàyyil yooyu ngay dugal nag. affaire autorité yi ngay dugal. <laughs> non kii day jóg. bi ma lay mujj gis yaa ngi meloon na xaab mais maintenant tu as pris beaucoup de poids. mais si mais mais suuf yaa mooy feeñ ci nit. wax ko mais moom il sait bien que en France c' est normal. waaw waaye waaye boo toppee patante yi ginaax yi moom doo da ngay prendre poids quoi da non mais xam nga dama am arthrose et puis sumay docteur dan ma tax a léegi seddaay bi yeegi yooyu moo tax ma daw ko je préfère régler sumay euh, peut-être mes biens immobiliers dan ma koy transférer. tu sais bi may ñëw 2000 fële moins un. ah trop froid. ma chérie. oui ma chérie dama bëgg a jënd puce. puce nga bëgg a jënd puce laa waa d'accord puce day jaay fii puce point yu bëri am na fi fiy jaay puce. parce que dama bëgg euh, ubbi compte Orange Money. profité wu ci promotion fin d'année yi. yow mii. lan wax naa xool li nga nar de. nee naa Sénégal dara umpu. elle a été toujours maligne. dafa <laughs> ah! muus mu koy gisee di dafa yeewu. mais pour bien fait parce que jamono jii may waxee yow. elle ñu ngi ci deux cent pour cent trois cent pour moom bu dee Orange rek. kañ dem ma gunge la ma chérie ma chérie jaru ko. bari ma gunge li muy wax ci orange money yëpp xam naa ko damay dem télécharge ko jënd puce. am ba profité wu ci lépp. nee naa la yéen jàpp leen ko fii rek. wuy ma gis nga boo fi réeree. talu mu wut ay potaki bool di tëgg naan. salaama sama gan bi réer ah kii gëj na fi ça fait dix ans. gëj naa fi de mais dara ump ma fii ci Sénégal xam naa lépp bàyyi ma dem jongo bi. waaw baax na xam nga yàgg dëgër bopp. maa ngi sa ginnaaw gis naa la. t'inquiète mon chéri. Ah. ok voilà de toi. à plus. ok merci. ok mais est-ce que doo rooti naa fan la koy lekk yow déjà bébé ki nan lay pataawee ñëw nga naan ko da pata loolu day découragé lu nit. ñoo koy découragé. ah da am yaram kenn bëggu ko dégg. mais xaw ma kañ lay ñibbi te sama photo yaa ngi nii à tout moment ko noxal wala ko. bébé. mais kii gis nga c'est fii waaw taxawal rek ma briefing la gis nga kii quand même kii du sa ñetti ñële nag. dañu te dëgg de dama bëgg nga mettre ko à l'aise ci biir kër gi sa jukko siis boobu denc ko 15 jours rek la fiy def yàggul. Ah, bu ñibbee waa ok nga renouveler def lu la neex tey le deux. tey le deux waaw. donc bu ñibbee on va fêter ça. tey le deuxième jour am ci biir kër gi bu ñibbee je vais fêter ça. la waaw tu vas fêter. <laughs> après les 15 jours je vais fêter ça et puis c'est fini. teewul dina romb kat nii ah, ah. nga mel ne cooli nii dafa sama xam ne moom may baare sa mbaxana mi doo ko wengal tuuti waaw lii man ban laa adduna man dama bàyyi adduna ma dama lay laaj ceebu réew mi mën na lii ceebu réew mi mën naa def ni nit man maa bàyyi adduna ma lii du ceebu réew mi waay yow da xam kii fu mu dëkk bopp koñ ba laa ko toppe kii tey am nekkul fii li muy xeeñ xam naa dafa neex. maa ngi bii moom bu dee effet yi lay def ci xale yi jigéen. doy na nag. kooku lii menuisier yi moom am nañ liggéey moom. lii bu dul woggu di suusal bu dul suusal di dugub suuna cox mënul lii <laughs> looy rek dama jommi man. lan la yow. yow lii lii. doy peral ma doy peral ma ay wax ah. waaye yii lii dim lii. baax lan la baax lii lii lii lii man lii. man lii nekk sa adduna bi tamit lii lan la ci adduna bi ñu ne. allahu akbar. eh dama ngay càmbar càmbar yi ñuy aw. lan la baax. eh wari wari wari wari. salaamaaleykum. maaleykum salaam. di nga war a an ka hal pulaar de. <laughs> oui mi ngi ko ak. alhamdulilah eh, kay góobe de. naaf yoo. kaa séeréer. non ah kaa niroog séeréer nag. pas du tout pas du tout nekkul séeréer pas du tout. Bandaraɓe. Eh, ça va. ça va man nag du ma woon Haalpulaar mais comme yow Haalpulaar nga ma transhumé. <laughs> na nga def c'est gentil même ah, moi ah ça va amoo loo seetlu ci xale bi. Ah. comme doomu batañ sa bu ñu sànni tuuti engrais. <laughs> waaw waaw <laughs> waaw. Eh, eh. ana sa bàjjen. ça va mi ngi fii. sa bàjjen dàmp na la de. eh loo am jox ko. yàqoo karité te karité ba. Eh. Sénégal bu ngi neex ba tey. ba tey <laughs> non yéen trop là. la bëgg wax ni la. Mm. Sénégal gii. Mm. yaay busol bi. <laughs> busolu réew mi ku bëgg xam sa indication <laughs> fan nga jëm eh, côté gauche wala droit eh, nan la topp. yéen yéen a ngi faj. trop kontaan nañ trop. ca engrais bala. Ah. ca mooñ bala. fayil ah, ma tegal ko soow ba mal. baax sama dënd bi mooy rëfërëfëwu nii doo xool lan la. kan si sama dënn bi day révélé wu. moom mooy mantalaat bi nga mokkoon sax nga sax may tegal ko yow dangeen a soxor. li nga mooy yëngal na ko de. Jusqu'au 30 janvier, Orange Monnaie, en partenariat avec Canal+, vous offre des cadeaux par milliers. Payez vos réabonnements Canal+, avec Orange Monnaie et profitez de jours supplémentaires gratuits sur toutes les chaînes et de plein d'autres bons plans. Orange Monnaie ak Canal fayda bi dafay wàcc ba zéro.